ko doon. moom rek a ko doon. kon nag kon nag. sëriñ Atex mii. sëriñ Atex mii. Ah, ku ci jiitu ku ku ci jiitu sëñ Fallou. ku ci gisul ko ci gisul. nee na sëriñ Atex mii koo xam ne gisuloo sëriñ Fallou. te gis ko te gis nga sëriñ Fallou. Ah, li may wax. sëriñ bi nee na. lii muy wax. waxuma ko ngir. nee waxu ko ngir. bëgg lu leen neex tax. lu leen neex tax yow de Mbàkke doo bëgg lu neex kenn nee na li am rek lay wax. lu ku fi nekk daal. nee koo xam ne yaa ngi fi. te jàkkaarloo na sëñ bi. te jotuloo jàkkaarloo ak Cheikh Mouhamadoul Fadel. te jàkkaarloo moom mii. te gis moom sëriñ Atex mi nee na la wóor ni gis nga Cheikh Mamadou Fadal nee na kon nag mi ngi ñaan ci daraje Cheikh Fadal seen pas-pas bii ngeen àndal ba ànd ak moom ba ànd ak moom mii ci lii ñu koy jëfloo ngeen am pay goo xam ne ngeen am ci pay goo xam ne bu ëllëgee da ngeen xam ku mat a topp ku dul Fallu ah, ah, am du du jërëjëf nee jërëjëf nee mi ngi leen di dénkaat si Cheikh mii nag bu baax uh, te di leen xamal ne te di leen xamal ni nit buy wut nit buy wut bu dajeek bu la muy wut la muy wut na sa jàpp na sa jàpp te téye ko bu dër te téye ko nag bu dër wasalaamaaleykum wa rahmatulah